voilà <laughs> éco entreprise la ñuy waxtaanee euh, rawatina jafe-jafe yi nga xamante ni euh, personnel bu hôpital Dantec ñu ngi koy euh, dundu jamono ji ginnaaw bu ñu ko tëjee fas yéene fa amal ay ay liggéey sans plus tarder dama lay bàyyi théorie ñu daal tàmbale waxtaan bi ak suñu invité bi léegi di monsieur Dione. hôpital Aristide Le Dantec bi nga xam ne dañoo tàmbali woon maanaam daal di jël nag parce que tamit dañu jàpp ne dafa màgget. ñu ne dañuy defar foofu ay travaux pour réhabiliter hôpital bi personnel bi ñu yóbbu leen ñenn ñi dalal jàmm situation tey travailleurs yi ak travaux yi fu mu toll. waaw merci beaucoup encore une fois Théodo comme ni ñu ko waxee rek ah je pense que hôpital Aristide Le Dantec ñëpp déggoon nañ coow li. waaw je pense que hôpital boobu dafa màggetoon ñëpp d' accord nañ ne hôpital boobu dafa màggetoon donc dañ ko waroon tabaxaat. tabaxaat bi defe naa ne ñëpp ci d' accord waaye ni ñu ko doon tabaxee ni ñu ko bëggoon tabaxee moo teeyoon xel. waaw moo tax ñun ñu créé woon suñu collectif pour la défense et la sauvegarde. lan moo ci tey xel monsieur tey xel bi mooy ne ñun. Mm-hmm. comme ni ma ko waxee woon la fois passée ah du ma tàyyi di ko wax. Mm-hmm. ñun ñun dañu amoon ñun dañoo amoon ay hectares amoon nañu six hectares ñun amoon nañu. projet d'établissement un plan boo xam ne ñun ñoo ñun personnel hôpital Aristide Le Dantec ñun ñoo ko defaroon c'était en 2012 validé par une commission de validation réalisé par un architecte sénégalais qui s'appelle Malick Mbow ñun signé woon nañu ak un promoteur sénégalais boo xam ne dërëmu état bi du ci dem c'est un promoteur sénégalais moom moo koy tabax li ñu koy fayee mooy selon les recettes de l'hôpital donc je pense que ñun pare woon nañ waaw ñu jékki-jékki rek état bi jóge fële indi ñu ay partenaires ay espagnol doo xam fan na leen jëlee comprendre ñu ne dañuy jaay trois hectares yi xaalis li ñuy jaay ci 3 hectares yi dañ koy dolli ci liggéey bi comprendre bu ko defee mu finan am rek mu mën a tabax donc je pense que yooyu yëpp ñëpp gis nañ ne scandale la woon. tabax bi est-ce que mi ngi avancé fan la toll exactement actuellement noonu ñoom ñoom ñoom ña ngay tabax ah, kenn xamul lu ñuy tabax ñoom rek ko xam. waaw mm-hmm. ah, kenn xamu ko. parce que parce que li ñuy tabax plan bi ñun validé wuñ ko ñun travailleur hôpital Aristide Le Dantec. Mhm. corps médical valé wu ko validé wu ko corps paramédical validé ñun dañoo xëy xëy rek gis ne ñuy rek ñuy tabax. mais justement parfois euh, yu mel ni euh, projet yooyu nga xam ne buy am. dañuy woo liggéeykat yi ñu toog waxtaan ak ñoom. Mhm. Euh, maanaam espèce xam nañ ni sax bu nekkee projet d'utilité publique même boo demee sax fu mu munti nekk ci àddina bi. Mhm. dañuy def lu ñuy wax audience publique. Mhm. est-ce que toog nañ yéen waxtaan ne leen ah ñun kat bëgg nañ def li lan ngeen ci xalaat est-ce que def nañ ko. amul benn waxtaan mooy li ma la wax rek jaay doole rek la. Oh. waaw jaay doole donc je pense que euh, leer na nañ waaw ñëpp xam nañ ne euh, espagnol yooyu di tabax foofu ils sont pas ak à construire du entreprise buy tabax sax hôpital. Mm. du entreprise boo xam ne c'est reconnu mondialement nga xam ne entreprise boo xam ne uniquement moom ci wàllu hôpital lay yëngu non donc léegi léegi dañu leen redéployer fële hôpital Dalal Jàmm situation travail voilà merci beaucoup situation sooru actuellement nii actuellement sooru personnel bi doy na waar parce que ministre bi lam ñu waxoon yëpp daf ñu joxoon ay garantie nañu suñu salaire du manqué suñu motivation du manqué suñu dara du manqué. Mm-hmm. ministre garantie yooyu la ñu joxoon. ba pare le personnel ñoom ñëpp dinañ leen affecté mais moment bii may waxee yow am na ñoo xam ne at ñi ngi toog seen kër kenn affecté wu leen. ba pare salaire yi day tardé Sénégal presque boo xoolee santé ñun ñoo fi muccee fayoo. kon redéploiement du bi ce n'est pas effectif. non c'est pas effectif am na ñoo xam ne moom at ñi ngi toog seen kër liggéeyuñu atum lëm ña nga toog seen kër moment bi may waxee ak yow ña nga toog seen kër. liggéeyuñu salaire amuñu dara. rek la ñu am te salaire bi day tardé balaa ñu cee jot ay 7 8 9 waaw te loolu du dëgg du yoon. parce que madame la ministre ay garantie la ñu joxoon nañu salaire yi motivation dara du taal rawatina ñoom amatuñu motivation personnel bi nga xam ne ils sont ils sont pas affectés xam nga motivation moom mooy lan pour ma leeral leen ko motivation boo xam mooy lan maanaam hôpital bi lu li mu liggéey ci wàllu recette moom la moom moom moom moom la travailleur di séddoo moom la travailleur yi di di seddoo comme na selon la catégorie. voilà selon la catégorie moom la travailleur di séddoo mais gis nañ ne hôpital ba ñu ko tëjee ba léegi personnel bi nga xam ne kenn affecté wu leen ñoom amatuñu motivation te ñoom dañoo defoon prêt ci banques yi banque yi dañ leen di taxaw. instant bi ma wax yow banque dañ leen taxaw di leen harceler. te il paraît am na ci loolu jàpp na leen ba ñu waaw am na ci ñoo xam ne naqar. mais nouvelle bi ma ko déggee man man bi ma génnee ci kaso bi ñëw. ñu jox ma liste ñi nga xam ne dañoo. lan moo tax ñu tëjoon la ci kaso bi balaa nga dugg ci question bi. waaw non ah, xam nga xam nga nguuru Macky Sall on le présente plus nguuru Macky Sall ku ñu ñu fi duggul kaso mën nañ leen compter jaay doole rek jaay doole rek. nekk du question tooñ madame. Mhm. man damay légaliste man je suis un syndicaliste je légaliste. Mhm. am na ñoo xam ne nee nañ vidéo laa def du vidéo tey sax euh, baax na ci sax na ma leeral. Mm-hmm. parce que am na ci ñoo xam ne damaa nee nañ damaa def vidéo saaga la général Moussa Fall man dañ ma yar. je suis général au moins mat na ma waajur. Mm-hmm. donc loolu xalaatuma ko statut laa def sur le général Moussa Fall. waaw ah, statut WhatsApp laa def sur général Moussa Fall. Mm-hmm. gendarmerie fédérale brigade recherche woolu ma. laaj ma ndax yow yaa def statut bi ma ne leen man maa ko def j'assume mes propos ñu ne ma nag lii nga lii nga li lii lii nga statut est-ce que am nga ci ay preuve ma ne leen awma ci benn preuve ñu ne ma nag kon da ngay tooñ ma ne leen damaa tooñ kon maa ngi jéggalu j'ai présenté mes excuses à la gendarmerie mm-hmm. donc je pense que ku présenter ay excuses am comprendre donc je pense que loolu jeex na comme comprendre même bu ñu ma baalul waruñu ma yóbbu instruction instruction lañ ma yóbbu tëj ma 6 mois 6 mois lañ ma tëj atte ma tëjaat ma yeneen 6 mois muy at logiquement franc grand ku xam yoon xam ne franc grand délit laa waroon taxaw franc grand délit bu ma fa taxawoon peut-être kenn du ma tëj sursis lañ may def donc mais boobu bëgg nañ ma tëj bëgg nañ ma denc bëgg nañ coow dante gi jeex rek. mais coow loolu du fi jóg. parce que les faits sont la ko waxee ci sort personnel je vais en revenir damay ñëwaat ci sort personnel parce que lu waaw ah, lu ma ñor la. seen revendication merci beaucoup voilà soor moment bi may wax ak yow. Mhm. moment bi may wax ak yow am na ci ñoo xam ne ña nga toog seen kër. amatuñu motivation te dañoo defoon prêt ci banque yi. Mhm. banque yaa ngi leen di taxaw nooy limal ko xaaj bi yëpp faatu nañ génn nañ àdduna ndax naqar stress. ñëpp xam nañ hôpital Aristide Le Dantec ni ñu ko tëjee dafa ñaaw. Mhm. rawatina banque yi di leen taxaw. waaw donc dafa laajoon sax un suivi psychologique. état bi sax daf koo waroon def bu yàgg mais xam nga xam nga ne ñoom defuñu dara donc xaaj bi yëpp faatu nañ. waaw moment bii may wax ak yow am na ñoom ña nga toog seen kër amatuñu motivation te li ci gën a yéeme madame. pendant ce moment bii may wax administration bi au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec mi ngi fay ay prime de responsabilité xam la mooy prime de responsabilité. prime de responsabilité maanaam mooy chef de service. Mhm. wala chef de division nga nekk ci hôpital bi. nga yor responsabilité foofu chaque mois ñu jox la sa prime dara mais madame ban responsabilité moo fi amati hôpital bu ñu tëj ana responsabilité bi dama leen koy laaj hôpital boo xam dañ ko tëj y' a plus de responsabilité donc balaa ngay fay ay prime de responsable di fay ay indemnité de logement di fay ay différentiel avec la complicité du directeur Babacar Thiandoum et sa bande lobby la différentiel ñu ngi koy ah, fay. lobby la bu nekk au sein de lan. Ah, loolu moom graaw naa. lobby la lobby le ministre de bu ñu demee ba di fay différentiel. ay pour pour une structure sanitaire bi ñu. bu ñu bu ñu bu ñu bu tëj. non loolu moom. ay prime de responsabilité. loolu moom war nga war nga mën ñëw saytu ah, tey joxe ay explication sénégalais yi. parce que sénégalais yi seen xaalis la ñuy jël di cotiser ci ay impôt di leen fay. merci beaucoup kon yëg bu amee ay affaires yu ñuy wax nii war nga mën a ubbi enquête leeralal sénégalais yi loolu nan la demee ak nan la tëddee waaw. vraiment ñu ngi lay interpeller Marie Khemesse Ngom parce que yow tu n'es pas tu es tu es une parce que pour avoir été médecin chef pour avoir été euh, géré euh, région de Dakar région médicale de Dakar ak yëpp tu as l' tey war nga war nga ñu leeral war nga ñu leeral wax dëgg yàlla. te Théodore loolu daal moo fa comme ni nga ko waxee rek c' est l' argent du contribuable xaalisu sénégalais la donc bu ñu ko jëlee. dugal ko ci hôpital bu Aristide Le Dantec hôpital boo xam ne tëj na defatul recette xaalis boobu madame la ministre daf ko war a saytu noonu moo tax ñun ñu ngi koy interpeller encore une fois. di ko xamal ne hôpital Aristide Dantec la xew ci administration bi jéggi na ma mafia bu rëy moo fay am association de malfaiteurs la. mais est-ce que amul tey contradiction au moment ñun Sénégal bi nga xam ne euh, suñuy jumtuwaay fajukaay doyul. Mhm. ñu jël fu mel ni hôpital bi di ci dagg pour jox ay nit pour ñu tabaxal ñu. qu'est-ce empêche euh, de plus ou moins d'exploiter la main-d'œuvre sénégalaise woo ñëpp ne sursaut patriotique képp ku mën a ñëw tabax hôpital bi ñëwal nga tabax ko. nga jàppale askanu Sénégal que ñu jël ay espagnol jox leen dagg trois eh, jox leen trois hectares pour ne tabaxal ñu qu'est-ce qui se passe xanaa ñun amuñu ay ay ay ay euh, entrepreneurs yu qualifiés. merci beaucoup Théodore Semedo loolu moo taxoon ñu créer collectif xeex bi loolu rek moo ko waraloon parce que dañoo gis ne hôpital Aristide Le Dantec dañ ko bëgg a saax saaxe ci hôpital boo xam ne école la référence la encore une fois formation bi maara day taale pyramide bi ci boppam moo effondré wu hôpital Aristide Le Dantec ku ko xam-xam ne symbole la ba pare hôpital boo xam ne néew di doole yi rek ñoo fa doon fajoo donc je pense que sooru maladie sax après dinañ ci ñëw néew di doole yi rek ñoo fa doon fajoo comme ni ñu ko waxee rek bu ñoom li leen intéressé woon moo doon suuf si suuf si rek moo leen intéressé woon tabax taxu leen woon a jóg nañ waxante dëgg bu dëgg ñëwee nañ ko wax tabax taxu leen a jóg. suuf si rek lañ soxla woon. rawatina ñun amoon nañu hectares yi amoon nañu promoteur amoon nañu plan ñu xëy benn jour rek. comprendre indil ñu loo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee pour lan pour bëgg seddoo suuf si. yàgg ngeen yaa ngeen jàmbaat problème mu salaire yi. Mhm. Euh, euh, fan la toll parce que euh, sur plus ou moins am na benn personnel bi nga xam ne hôpital bi moo leen jël. Mhm. personnel soignant boobu nga xam ne parfois ñenn ñi galaa sax ñu leen di dugalaat ci système sanitaire bi day yàgg. Mhm. fan la loolu toll. maanaam. personnel bi par rapport au salaire. personnel bi mooy li ma la wax léegi salaire yi day tardé am na ci personnel boo xam ne ils sont ñoom yóbbu nañ leen ci yeneen structure ah, alors il faut le saluer aussi waaw non mais c'est normal waaw am na yoo xam ne c'est logique c'est normal mm. ñun du ñu ay nihiliste tamit ah mm-hmm. ku def lu baax dañ koy wax mais am na yoo xam ne jaruñu fi gërëm nit c'est logique c'est normal nit koo xam ne sa employé la boo tëjee dara yaa ko war a affecté kooku amul amul lu ñu fi sant ak madame la ministre di ko gërëma ah. c'est un droit ah. yi dañu leen war a affecté mm-hmm. donc ñooñu affecté nañ leen ñooñu structure bi ñu nekk ñi ngi leen di fay motivation ñooñu amuñu problème motivation mm-hmm. d'accord ñooñu problème salaire la mooy li salaire mooy tardé. kon ñi ñoo am problème motivation. ñi dem nga xam nga toog de cent cinquante ko ëppul sax. parce que ah c'est grave ah leen nga toog ah. leen. waaw léegi yi ñoom ban taxawaay lañ taxaw. ci centrale syndicale yi waaw centrale. centrale syndicale yi moom nañ ko wax il faut oser le dire le syndicalisme fii au Sénégal doxatul doxatul amatul syndicaliste boo xam ne mën nañu wax ne kii mooy suñu référence an man bokk kon yow central syndical da nga jàppale dimbali classe ouvrière mais man ñaata at la ma Macky tëj at la ma Macky tëj da nga centrale syndicale bu jóg na daf may xeex un syndicaliste. ah ñoom ñu ngi dem ci élection de représentativité non non daal élection yi presque le personnel contractuel comprendre da koy boycotté. mais bien sûr. ñu wax loolu. benn njariñ il faut oser le dire. ah loolu c'est grave de. gars yi centrale syndicale yi seetaat leen seen bopp de gars gis nga ñu ngi jooy travail yëpp ngi jooy. ah travailleurs yaa ngi ah, jooy. bu ñu xool bu élection représentative yi di ñëw rek commencé jóg. di di lëre travailleurs yi mais travailleurs même Semedo bu ñu demee ba créer ay collectif nga xam ne les syndicalistes ont on à leur mission. ak ak mouvement activiste yi. voilà kon nga xam ne les syndicalistes ils ont failli à leur mission. que ñu waxtaanee ah. euh, le sort. que depuis boobu ñi ngi waxtaan le sort du personnel c'est vrai que ñoom situation bu métti métti ñoo fa doon faju te xëy na kii yu bëri ñu tëj ko ñu am ay jafe ci ci paj mi loolu tamit lan nga ci a. waaw madame balaa may ñëw dinaa ñëw ma mais nga may ma tamit sort personnel bi des na de. voilà voilà sort personnel bi dinaa def dinaa la fàttali heure supplémentaire avant hôpital bi tëj avant ñoo tëj hôpital bi administration hôpital Aristide teg daf ñu ameloon ay heure supplémentaire heure supplémentaire ñaata la ci koppar non ça ça dépend ci seen budget rek mën na doon trois cent millions wala deux cent millions comprendre mais personnel bi lañ ko ameloon boobu ba léegi at ngi nii mënuñu fexe ba fay ko wax naa la ko fii te directeur baa ngay fay ay prime de responsabilité di fay indemnité de logement yow balaa ngaa fay loolu doo fay ba boru jàmm. il faut solder on dit mais, on dit en comptabilité il faut d'abord solder la passif avant de faire quoi que ce soit. mais merci beaucoup non na solder suñu bor yi suñu heure supplémentaire nañ ñu ko fay at a ngi nii ñu ciy topp comprendre bu doon amul xaalis sax ñun mën nañ ko nangu mais boo demee bay fay ay responsabilité ah di fay ay ay ay indemnité de logement di fay ay différentiel mais ça veut que ne l'argent est là donc yow jox ñu suñu heure avant ngay fay yooyu yooyu muy fay yëpp ñoom la rek mooy li ma la benn lobby la bu sein bu nekk au sein de l'administration parce que prime de responsabilité yooyu yëpp dañ ci am waaw léegi dinaa ñëwaat tamit ci wa euh, benn suñu benn euh, invité bu baax boo xamante ni moom moo ñu indil petit four yi ndekki yu baax kon mhm. ko petit woote mhm. moo tax mu indi ñu ay kaas yaa ngi indi ñu ay ay yu yaa yoo xamante ni xam na eh, Aïcha laal la Aïcha Aïcha tey maa koy sànni xeer Aïcha bu fi ñëw Aïcha Diakhaté tey bu fi ñëwaa bu laal bu njëgee dégg nga gars yi ne bu laal bu njëgee bu ñëwee mooy suñu invité bi ñu wax am ci mode moom moo ñu indil xéwal yi macha allah donc ñu daal di continuer rek euh, am na solo donc encore une fa comme ni ma la ko waxee ci wàllu recrutement bi tamit li ma lay wax ne yaa lobby bu fa nekk wàllu recrutement yi tamit ñu wax naa la ko fi presque xaaju personnel bi yëpp génn nañ àdduna mais personnel boobu génn àdduna dañ leen war a remplacer parce que ñoom ñu ngi ci budget bi mais am na prestataire yoo xam ne def nañ fi dix ans quinze ans huit ans teew di galérer seen dundu metti ñuy muñ mais yàlla bu defee ñu am post yu vacant yooyu Théo ñan lañ ko war a jox. loolu loolu lool moom c'est même c'est même inscrit dans le droit du travail. la loi voudrait que avant que yow ngay dem di recruter di walangaani feneen. bu fekk ne am na ay post à pouvoir. yow directeur bi fu tey si personnel bi mu am ñu am diplôme am lijaasa yooyu. Ah. ñooñu nga war a gën a jël. priorité avant ngay walangaani feneen kooku c'est la loi. qui le dit mais léegi xam nga na la ñuy def xam nga nan la def. dañuy toog seen ruq mooy li ma la wax lobby boobu rek kii dem indi jabaram kii andi jarbaatam kii andi doomam kii andi nijaay ñu puus leen man bi ma génnee loolu laa fi fekk. sauf c'est grave. merci beaucoup affaire affaire mbokk lañ ko def. lobby boobu ma lay wax rek. ñoo nekk ci autour du directeur comprendre waaw ñoom ñoo fa nekk comprendre ku génn àdduna rek ñu indi seen jabar seen mbokk dugal bàyyi personnel bi nga xam def nañ fi dix ans quinze ans huit ans. donc loolu dañ koy naqar ma madame la ministre encore une fois ñu ngi lay interpeller situation hôpital Aristide la danteeg la fa administration bi nekkee jéggi na dayoo xaalisu sénégalais yi nga jël jox leen ko pour ñu jox ko personnel bi ne leen seen salaire bu mu manqué seen motivation bu mu manqué seen dara bu mu manqué xaalis boobu nag dama lay xamal ne mm, directeur bi ak sa bande moom lañ jël di ko noosee di ci fay ay indemnité de logement di ci fay ay ay ay ay ay ay ay ay prime de responsabilité bàyyi force personnel bi dama lay xamal ne nag sa personnel bi yëpp xaaj bi yëpp génn nañu àdduna faatu nañ ndax naqar. léegi ñu ñëwaat ci sort euh, euh, des malades te ne xëy nañu daan te ñu ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe yu métti. waaw non maladie moom madame encore une fois l'histoire nous a donné raison. li tubaab naan le temps c'est le seul juge yàlla daf ñoo àtteeg ñoom. lañ leen waxoon yëpp gis gis nañ ko newoon nañ leen ne tëjum hôpital Aristide te catastrophe sanitaire la mais l'histoire nous a donné raison léegi nag ñoom nañ def bilan des morts ñaata ñoo ci décédé ci diggante bi nañ ko wax parce que boo ko malades sont morts nañu wax léegi ñaata ñoo ci génn àdduna parce que lan la c'est des Sénégalais lambda kenn xamu leen amuñu ñu leen taxaw encore une fois je condamne la société civile les organisations de droits de l'homme je pense que yooyu ñoom waroon jóg dénoncer ko. waaw naqarlu ko parce que beaucoup de sénégalis soo morts euh, ci tëjum hôpital Aristide Le Dantec il faut ñu wax ko nañ ñu wax bilan bi ñaata ñun ñoo ci décédé nañ ñu ko wax du man maa ko wax ah c'est la presse moom moom moo ko relaté moom moo ko wax ñaata ñoo ci décédé ak ñaata ñooy toog di xaar seen radiothérapie wala su euh, et cetera et cetera man bi ma génnee j'ai fait une visite de terrain bi ma génnee dem naa hangar ba malades yi nga xam ne ils sont les les les dem naa fa def xool mais ba ma fa demee xam lan laa fekk. premièrement foofu nan la fa nit mën a yóbbee ay malaat yoo xam ne dañoo jalis mi ngi enclavé wu benn peru enclavé boo xam ne ruq la. condition yi da nga jàpp merci beaucoup condition wax ma accès bi sax je je doon donne un exemple da ngay gis koo xam day dëkk yëmbal. Mhm. ki dëkk yëmbal war a ñëw hangar aéroport ci malaat lan la war a jël taxi taxi yëmbal aéroport ñaata la nga war ko def deux fois dans la semaine aller retour mais Théodore <laughs> mais dañu wante dëkk loolu xel nanguwu ko. ba pare boo ñëwee ba aéroport li lay dugal yóbbu ci hangar ba problème yëg nga ne temps yi am na benn malade bu ñu fa agressé woon. ah bon non dafa enclavé wu man je pense encore une fois yéen journaliste leen interpeller il faut ngeen ah li ma jaaxal foofu foofu souvent aéroport fii bon c'est l'une des zones presque les plus sécurisées il y a la gendarmerie à côté. non euh, foofu hangar ba dafa sore aéroport ma nga ca kaw a kaw. maladie problème transport la ñuy am. man ba ma fa demee visite li ma la wax ni c'est des faits man. donc j'étais mais quest véhicule. Mm-hmm. boo egsee ci aéroport bi moom muy def navette. Mm-hmm. pour di yóbbu hôpital yi. Euh, euh, di la yóbbu fële. ci ci dialyse parce que sénégalais yi ci boppam ñoo leen ñorul askan boobu ñoo leen ñor il faut aussi loolu du dara ci état bi loolu du dara ci moom. te pourtant ay meeting yu 10 millions. waaw ah, mi 30 millions. bon vraiment parfois nag on a le lii lii moom waroon ñii am ay dialyse. ku si nekk na ngay xalaat sa mbokk ngir yàlla li dal ñu mën na dal sa mbokk kon nag bu jàpp ne am nga koppar ne yow bul doo dimbale kenn parce que li li li li leen dal ñoom mën na dal sa mbokk kon war nga mën a jël parce que xaalis yi ngeen di yàq ay trente di million ay meeting vraiment demoon jëf ku jël sax geste véhicule jënd ko yéen ci gouvernement bi jënd benn oto yàlla yàlla moo lay fay mais pas ngeen jël ñooñu jalis yi wàcc ñu leen dem ba leen agressé loolu moom vraiment ah dafa ñaaw daal na fi de man inventé wu ma c'est les faits hein. parce que dafa en dafa wéet. Mhm. yéen journalistes itam il faut ngeen ay il ngeen di def ay reportages. wàcc sur le terrain xool maladie li ñuy dundee mais li ma la wax ni c'est pas xoolal diggante bi ngay eh, aéroport ak jëm hangar foofu moo wéet ba pare ay ñax rek la. yéen dégg ngeen ko des fois ñu problème ndox. d'accord des fois donc je pense que les faits encore une fois ak ma ak xale yi nga xam ne dañoo am cancer dem naa fa. Mhm. dalal jàmm. Mhm. j'ai sur le terrain. encore une fois maa ngi saluer bravoure docteur Ndéla waaw ah, maa ngi ko fekk euh, ci benn salle boo xam ne c'est pas climatisé mi ngi ñàkk tooy xep maladie cancer yi tiim ko waaw ah, xale ay xale yu ndaw yu am cancer ci condition yooyu lay liggéey ñàkk tooy xep madame li ma la wax ni du ay caaxaan ah. mais am na Sénégal lañ nekk monsieur Dione est-ce mais tout à fait am na ay priorité yu gën a mais priorité mais ay mais a am solo mais mais madame Mbacké madame gis ma la priorité loolu nag yow tamit dañoo wax dëgg. xale yi am cancer nag seen kii bi war na féex. saal bi war na féex bu leen di consulter lool moom. mooy yooyu yëpp xam lan moo ko waral. lan moo ko waral lan moo ko waral yàkkamti bi ñu yàkkamte rek. bëgg a jël suufu hôpital rek moo ko waral mais bu ñu teyoon waxtaan. comprendre maladie mën nañ leen tra am si am plan de redéploiement lépp mën nañ ko am ci calme ci dal ak tey ñu régler problème yi parce que loolu jafewul mais yàkkamti bi ñu yàkkamti woon bëgg a jël suuf si moo ñu yóbbee problème yi. ngay xaar si say situation bi man xaaruma ci ñoom dara. Mhm. parce que at a nii defuñu ci dara. defuñu ci man organisation droit de l'homme yi laay interpellé. Mhm. société civile laay interpellé. Mhm. man ñooñu laay interpellé interpellé moom état parce que moom xaaruma dara ci moom. waaw moom moom xaaruma da parce que madame dañu wante dëgg. non parce que xam nga ñaata yoon laa ko interpellé. ñaata yoon laa leen interpellé ba ñu dugal ma ci kaso bi. ñaata yoon. ah donc je pense que du ma leen interpelle j'interpelle les organisations euh, la société droit de l'homme ak association ak ñoom ñëpp waaw ñoo war a jóg jaa wax état bi ne carrément li malade yi nekkee du dëgg du yoon encore une fois waaw. lu wax te woo xanaa bu am na dernière question. waaw dernière question bi fi may laaj mooy aujourd'hui yéen travailleurs yi lan mooy nekk seen taxawaay yéen syndicats yi gannaaw bi nga xam ne amatu leen yaakaar ci central yi face aux problèmes yi nga soulever mhm. ak travailleurs yi. waaw mooy li moo tax ñun ñu créé woon collectif collectif pour la défence et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec bi ma demee ba gis ne hôpital Aristide Le Dantec rek tabax bi scandale la ci laa jóg ñu crée suñu collectif jël suñu destin en main ñun travailleurs yi collectif boobu nag moo ñu indi fii donc xeex boobu ñu doon xeex tey est-ce que mës nga ci dégg central bu ci jóg yëngu ci dañuy waxante dëgg est-ce que mës nga ci dégg central bu ci jóg yëngu ci ci xeexu Dantec ñu ma jàppee fii da leen a dégg déggoo leen donc ñoom ñoom ils ont failli à leur ñoom bàyyi leen foofu rek ñun ñun travailleurs ñoo jël suñu destin en main. mais est-ce tamit interpellé ngeen ci ñi nga xam te ñooy centrale syndicat yi afin ñu mën leen jàppale ci situation bi. madame. Mhm. ñun li ñu waroon def def nañ ko. man mii di wax yow je suis syndicaliste. Mhm. donc dafa am fu ma affilié man S man je suis le secrétaire général SDT euh, section Dantec. Mhm. donc je suis syndicaliste xam naa donc ñoom est-ce que war nañu xaar ñu leen di jàppale euh, ñu leen di interpeller sax man en tant que syndicaliste man eh, des fois syndicaliste yi déggoo du am mm-hmm. mooy bu kii su lay. non non SDT mooy Cheikh Seck. ah Cheikh Seck. Mm-hmm. bu nekk euh, hôpital général Grand euh, Yoff. Mm-hmm. ah Cheikh Seck. gars yi nañ kontaanuñu de travailleur hôpital Dantec yi. te yaay chaque jour yaay ne défense des travailleurs war nga ñëw andi tontu de ak leeral. mi ah, xanaa rek voilà xanaa ma ñëwaat tamit ci wàllu ci wàllu indemnité yi. waaw am indemnité waaw yi ñu état merci beaucoup indemnité yi ñu état bi amee. indemnité yi li ko euh, man xam nga lan laa ci gis. méchanceté soxor. parce que soxor weesuwul. déet waay. ah non bien sûr il faut oser le dire te xam la moo tax ma wax loolu je ma man je suis man bi ñuy signé bi ñuy signé accord yi bi ñuy signé accord yi bi ñu koy signé. ministre ak ak le ministre euh, Daouda Diallo man j'étais présent ci accord yooyu dañ ne indemnité de logement pour tous la woon. Ah. d'ailleurs foofu interpellé nañ na ko personnel étatique boo leen fayee bàyyi contractuel contractuel bi y aura problème bi mu ko defee problème dafa jóg syndicat yi jóg ñu fippo bi ñu fippee bu ñu fippoo mu créer un rallonge de huit milliards moom daaw da jàll déglu li ma lay wax teew c'est important Mhm. ñu ne ko contractuel yi maanaam contractuel mooy personnel bi nga xam ne dañoo nekk ci hôpitaux yi hôpital moo leen di fay comme ñun. Mhm. boole ñu woon boole wuñu woon boole woon ci accords yi bi ñu aaloo ci la mm, le ministre Daouda Diallo def rallonge de huit milliards ne léegi kon nañ leen fay. comprendre ñoom madame la ministre ministère de la santé ñu def seen évaluation bi ñu defee seen évaluation xam lu ñu gis. Mhm. ñoom dañoo dañoo gis ne. Euh, huit milliards comprendre mooy xaalis bi nga xam ne moom la état bi war a débloqué ci la ab Daouda Diallo de débloqué huit milliards jox ñu ko nañu nañ fay kon contractuel yi coow yi jeex mm-hmm. huit milliards yi nekk mi nekk ministère huit milliards génn na ñu war ñu koo fay ñu jékki-jékki euh, madame la directrice des établissements publics de santé génn benn mail ne léegi am na catégorie euh, personnel boo xam ne bokkuñu ci kenn waru leen fay waruñu am indemnité de logement discrimination bi daal di tàmbale te état bi génn na huit milliards pour fay ñëpp mu génne benn décret ramal quatorze trente ne léegi personnel euh, contractuel bi nekk dans les hôpitaux bokkuñu ci parce que ils sont pas diplômés mais camarades nañu waxante dëgg il faut qu'on se respecte mm-hmm. santé ku ko xam-xam ne chaîne la le blancardier ci système bi la bokk l'instrumentisme ci système bi la bokk affaire yi du ay diplôme tey Sénégal xoola fi mu toll eh, sa indépendance ba léegi ñaa eh, eh, non madame may indépendance ba léegi indépendance ba léegi mille neuf cent euh, euh, indépendance ba léegi mille neuf cent soixante xoola fi ñu toll mhm. Sénégal dafa avancé mais lan moo tax avancé wul. mais parce que ñi ko yor ay diplômé lañ mais gis nga liggéey bi. Mm. donc affaire du ay diplôme. ah mais ah, nag mais nag mais nag euh, faj dafa faj dafa garaaw de gis nga nag yéen ñii. seen erreur médical yi war nañ ko seet de non déet parce que nag parce que yéen bu yéen a am na ko fi ñëwoon fii nekk CTO ne day opéré waa ji musul jàng santé di di di di leen di kii rek ne day opéré mu ngi ngi noonu ñu téye ko fi tëj ko ah, na tamit temps yi passé seen certificat médicaux yi y a des gens qui font faux usage de faux gis nañ fi seen benn waay euh, waax naan limisaat ñuy jël di tëj nit ñi bêtement di délivrer ay certificats médicaux transformé médecin seen gars yi tamit nag John waxan dañ waxante dëgg. merci boobu moom war ngeen ko régler di délivrer ay faux certificats médicaux. ay nit ñi leen di lor leen di tëj kaso. loolu moom war ngeen ci wax. merci beaucoup Théodore. Mhm. Théodore je na secteur bu mel ne santé nga xam ne du jeu du fowukaay mais kenn waru ko libéraliser. xool y' a la prolifération des écoles privées man ba ma ci interpellé madame la ministre léegi ma trois ans. scandale yi fi amoon ay ay ay ay aji soxnaak scandale yi fi amoon ay ay ay ay ay ay ay ay Louga ak yaa vous vous rappelez yooyu yëpp le seul responsable c'est l'État ah, moo fooyee secteur bi moo ko yàq donc encore une fois pour pour pour pour pour pour revenir aux aux aux aux indemnités état bi moom pare fay nañu jox nañu huit milliards pour ñu fay ministère ñoom ñoo toog seen ruq ne ñii ñooy am ñii du ñu am ñii ñooy am parce que léeg-léeg nga gis seen comportement sa gars yi ah. da ngay ñëw ci hôpital. waaw parce que seen gars yi da ngay ñëw ci hôpital di faju nga gis naa benn seen waa femme bi di waaj a matu. femme bi ñu ñëw ne ko kaay am na kenn ku toog fee di matu mu ne noonu na ko man damay reer ba pare. Mhm. man sama kanam. ba ma jëlee jël sama téléphone woo médecin bi ne ko sëñ bi li nga def nii xanaa xamoo ne mun nga ñu dàq mm-hmm. lu tax ngay woo médecin chef ma ne ko parce que mm-hmm. yéen vous êtes irresponsable mm-hmm. chaque jour ngeen toog fi kaas kaas suñu payoor suñu payoor nit kii mu te dugaluñu femme bi di trente minutes femme bi accouché Mm-hmm. loolu moom sama kanam. teewu ci loolu sax ngeen baal ma ma sànni ci kàddu ndax mm-hmm. yooyu dafa bëri li muy am ci hôpital yi ñu ci mel ñun jigéen ñi nga xamante ne ñun mm-hmm. jigéen lay doon man je comprends parce que dañuy teg nit ki fi nga ko warul teg wala aussi dañuy opter pour def benn liggéey xam boobu ndax parfois am na ay traitance suñu lay def yoo xam da naan est ce jàng na li muy def est ba muy ñëw fii serment bi mu defoon est xam na lan la a dundal mais warul wax yoo xamante ne danga naan kii est sax docteur la wala est kii médecin encore mhm. encore une fois merci beaucoup merci beaucoup corps boo dem corps mhm. boo dem am na ay brebis galeuses man je suis entièrement d'accord ah, man je ne défends pas l'indéfendable de man je suis un syndicaliste je suis un de mhm. du ma défendre l'indéfendable je suis entièrement d'accord avec vous li ngeen wax yëpp am na corps boo gis am na ay brebis galeuses mais xam la mooy sama prolifération école yi ku jóg ubbi sa école loolu c' est l' état le seul responsable c' est l' état encore une fois Théodore je vous comprends mais le seul responsable c' est l' état mm-hmm. l' état et les syndicalistes mm-hmm. les ah, mooy li ma la wax léegi les santa les les les syndicalistes parce que waruñu ma woon waruñu seetaan secteur bu mel ne santé ñu koy libéraliser mm-hmm. Eh, loolu loolu loolu syndicaliste dañu waroon bañ. parce que sa santé du fowukaay c'est pas un loolu nag moo indi dérapage yi ngeen gis nii yëpp loolu parce que là la formation est bafouée. Mhm. waaw loolu moo indi problème donc encore une fois pour ma terminer. par rapport à indemnité yi voilà je suis entièrement d'accord donc mhm. encore une fois dañuy interpeller madame la ministre. Mhm. huit milliards yooyu suñu xaalis la état bi moo ñu ko jox président moo ne nañ généraliser indemnité di ñëpp nañ ko am ñu def simulation bi génne huit milliards yooyu ñuy fay ñu génne seen benn mail bi mooy li muy wax bërki dem lonkal boobu comprendre mhm. mail boo xam ne teguñu ko fen d'accord ah rawatina je vous doon un exemple waaw pour ma tënk pour ma tënk da ngay dem da ngay ñëw exemple exemple je vous donne un exemple da ngay ñëw ci benn service injustice bi laa lay wax da ngay ñëw ci benn service gis un brancardier boo xam ne étatique la fonctionnaire mhm. nga gis benn infirmière boo xam ne contractuel la mhm. ci ñun la bokk blancardier boobu ma lay wax étatique je n'ai rien contre lui de mais moom am na indemnité de logement infirmière bi nga xam ne contractuel la amu ko merci mais loolu injustice la donc injustice boobu dañ ko war a repérer. ñëwaat injustice la on espère que yëf dina décanté bu baax a baax ñu remercier la jaajëfal la ci taxawaay bi nga xam ne amal nga ko donc merci beaucoup. waaw encore une fois man maa leen di sant di leen gërëmaa ah ci dalal bi ngeen ma dalal donc encore une fois di nuyu Sénégalais yëpp di leen wax ne ñoom ñëpp namoon naa leen encore une fois di jéggalu nag ci kàddu yi lu ci dëng rek ñoo xam ne mata di doomu aadama lu ci jub ne suñu borom la ñu ngi sant ñëpp